yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum mbokk yi nuyu seetaan fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyoon nañ leen fii ci grand mosquée bu Touba. ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee muy bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi ci biir weeru kooruk 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 mbokk yi tey jii yi dañ koy door rek waxtaan yu am solo yi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci grande mosquée bu Touba ci diirub weeru koor gi di am di ay thèmes yu am solo yoo xam ne dañ koy tànn loolee nag euh, nekk lool day euh, soxal euh, askan wi ak ñi nga xam ne dañuy ñëw di ko teewlu moom moo tax ci wàccaay wi daayira Muxaddamatul ma dañ ci ànd ak daayira Rawda Yaaxin ngir tànn thème yu am solo yoo xamante ni dañ koy waxtaanee ci diirub weeru koor gi loolee Serigne Cheikh Mbacke Ñang taataan nañ ko suñu micro indi na ci ay leeral ci li nga xam ne noonu la tànnee thème loolu nag bu fekkee ne dafa def dafa demee noonu te xam ni xam-xam mooy cosaanu lépp lu baax ci àdduna. Euh, fu dox fu nekk euh, xam-xam moo ko doxal euh, nga xam ne mun ta ñàkk loolu nag moo tax buñ demee bay liggéey ci lu aju ci xam-xam faaw ñaari daayira yi dañuy lënkaloo ndax balaa muy ñëw ñoom waa daayira Moukhaddamatoul Khidma bu ñuy waajal seen seen bu ñuy waajal seen programme mu koor dañu ciy woo ñu dem ànd ak ñoom toog def li ñuy wax évaluation maanaam saytu année weesu naka la tëddee woon ak ni ki ñoom ñoo ma koy ànd ndax ñoom ñoo ñu ciy woo ñu wax ca suñuy xalaat su ko defee li mat a jooyante ñu jooyante ko li mat a gën a dëgëral ñu gën ko bu ñu noppee ñu door xalaat ci programme bi at mi dëgmal loolu ba ren jii may wax rek euh, man mi yàlla dogal na bokkoon naa ci ñi teewaloon daayira bi foofa ci saytu boobu kon ñoom xam nga ni euh, seen mbir doonut xaar ba mbir mi sotti ñu wooñu ci waaye fañ koy nose dañuy ciy woo ñu ànd ci ànd kook ñoom ci xalaat bi ci loolu xam nañ ñu rafetal la rek waaye euh, ñoom mën nañ ko bu baax a baax sax mën nañ ko bu baax a baax kon bu ñu ci woo dañuy cëral yéen ñu tëyaa ba euh, rafetal ànd bi rek xam ne tool bi benn ya euh, sas yiñ topp bi rek moo wuute waaye loolu du ci loolu loolu ñoom mën nañ ko bu baax a baax. mbokk yi mu nekkoon kàddu yi Serigne Cheikh Mbacke Niang ci thème yi nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaanee ci diir weer koor gi ginnaaw tàkkusaan fii ci jumaay Touba ju mag ji. daayira mu xaddamatul xidma saa su ne dañuy amal ay bilan ci li nga xam ne moom la ñuy def ci biir weeru koor gi ba tax na bi ñu amalee fukki fan ci weeru koor gi jot nañu def bilan provisoire di benn xayma ci li nga xam ne moom lañ jot a def ci diiru fukki fan yi loolee nag euh, am na kàddu yu am solo yoo xamante ni sëñ Abdoulaye Diop leeral na ko ci ñu ànd ko. Euh, jërëjëf sëriñ Fallou ni nga ko waxee noonu la daayira mu xaddamatul xidma ci liggéeyu koor gi yëpp dañuy faral di def fukki fan yu ci jàll rek ñu toog xayma fukki fan yooyu xool liggéey bi nu mu tëddee xool lu ci jar a amélioré actes yu ci jar a amélioré ñu amélioré ko lu ci jar joyanti itam ñu joyanti ko corrigé ko ci mboolem commission yi. yàlla dogal na ci dimanche ji nga xam ne mooy fukki fan ak benn ci la ñu amal réunion évaluation évaluation boo xamante ni mboolem commission yi ku ci nekk dana évaluer dix jours am plan d'action bi mu tegoon euh, lim ci jot a réalisé ak lan moo ci jot a yokk lan moo ci jot a euh, am. liñ ci defagut lu ci jara a joyanti lu ci jar a euh, yokk loolu lépp def nañ ko. bu dee ci commission bi ñuy njëkkee mooy commission culturelle nga xam ne moo yor lépp lu aju ci wàllu waxtaan yi ci biir fukki fan yi amal nañ fukki jataay fukki jataay waxtaan. ci biir fukki jataay yooyu am na juróom benn jataay yoo xam ne ay muhaadaraat la maanaam ay thème la ay thème d'actualité wala thème yoo xamante ni xëy na thème général lay doon. am itam ñetti jataay yoo xam ne ay duruus la li wax ay bind la ay bind lu nit mën a jàng mottali koo ko ci wàllu diineem am benn jataay boo xam ne jataayu fatwa la muy laaj ak tontu boobu sëriñ Mbacke Abdourahmane moo ko doon def bu ngeen ko waxoon nañ leen weer wi dañ cee programmé ñeenti fataawaa ñeenti jotaay yoo xam ne ay laaj ki tontu la waaye benn boobu lañ jot amal ci fukki fan yu njëkk yi jotaay itam doon jotaay yu am solo yoo xamante ni yenn yi ay kilifa diine ñoo ko doon def yenn yi ay jàngalekat yenn yi ay professeurs yenn yi ay imaam macha allah mu jitaay yoo xamante ni ñëpp rafetlu nañ ko macha allah amu ci benn boo xam ne rek gis nañ ci benn rëq-rëq fa tabarakallah biñ ci jógee tam dem ci commission organisation moom itam évaluer nañ seen fukki fan xool ba xam li ci gën a yéeme mooy euh, nombre nit ñi fi doge gën naa yokk bu baax a baax ba tax na ñoom itam dépense yi nga xam ne moom lañ programmé woon sax jóge na fi mu nekkoon xaw a am benn hausse maanaam yéeg tuuti yokkute bu am bu mu am tuuti ba tax na loolu nag li ko waral xam nañ ko mooy mbooloo mi day gën a yokk ñi nga xam ne dañuy ñëw di xool si liggéey bi ak ñi nga xamante ni rawtu ñi nga xam ne dañ koo aajowoo loolu itam euh, def nañ ko mboolem yokk yi dangeen koy gis ci image noonu ba ci fiñ koy jëfandikoo fiñ koy euh, waajale yooyu yëpp leer na ci euh, ci image yi biñ ci jógee ñëw ci commission bi nga xam ne mooy commission sociale commission sociale xam nga ko wax ndog tam wax sociale ñoom itam liggéey bi li ñu jot a liggéey ci fukki fan yu njëkk yi di liggéey bu am solo boo xam ne bokk na ci ay action sociale yoo xam ne mu ngi jëm ci biir imaam yeeg noddukat yeeg waa daari kaamil ñi ci biir jumaa ji waaye nag am ci beneen jéego bu bees boo xam ne soqi nañ ko muy lu mel ne suñu mbokk yi nga xam ne dañ leen a denc ci euh, caabi di leen féete ginnaaw euh, di ñaan suñu borom teggil leen ci xat yi jëlee ci xat yooyu ñu nekk dem nañ fekk fa fekk leen fa ànd ak président tribunal ak ñi nga xamante ni ñoo yor administration pénitentiaire bi fekk leen fa jox leen ay ndog yoo xam ne dafa jóge ci jumaay Touba loolu jàpp nañ ne lu am solo loo xam ne euh, euh, bëgg nañ ca lool waaye itam dana dana tax ñu baree bari mën leen a bàyyi xel rawatina ci weeru euh, tedd bi ñu nekk di sahur ramadan al mubarak loolu tam am na waaye itam mboolem kër yi kilifa diine yi nga xamante ni ñoo wër jumaa ji itam am nañ pas-pasu def def lu mel noonu dem yëgal leen xamal leen ne ndogu yi ni lay demee ñu tekki seen bët loolu itam ba bari na itam ay mbooloo yoo xamante ni wuy si nañ fi muy mbooloo yi nga xam ne ñoom lañ séqal dëkk bi ñoom ñu ci bare bari invité nañ leen ñëw nañ ci biir fukki fan yi lu mat fukki mbooloo ak juróom ñaar wuy si nañ ci woote yi ci biir fukki fan yooyu ñenn ñi sax ci administration bi lañ bokk du ñu sax ay mbooloo ay mbooloo diine nii waaye mbooloo moo xam ne dañuy liggéey ci administration ñoom itam wuy si nañ ci woote bi loolu waa commission sociale def nañ ko ak yeneen action sociale yoo xamante ni yu baree baree bari la xëy na mën si ko détaillé ba mu ba mu mu jeex bu ko defee ci wàllu communication tam xam nga ne mbir yi fu mu mën a àggit communication moo ko fay àggale moo koy wone loolu tam communication def na ci liggéey bo am solo am na ay télévision yu bëree bëri yoo xam ne def nañ fi reportage mën nañ ci lim RTS mën nañ ci lim Al Mouridiya mën nañ ci lim Touba TV mën nañ ci lim Lamp Fall TV mën nañ ci lim euh, Bichiri Mafatihul Bichiri TV mën nañ ci lim ay télé yu bëree bëri yoo xam ne bu ci nekk ñoom ñëw nañ fi def reportage ba ki ba ci académie Minane yooyu yëpp def nañ fi ay reportage ngir gën a mën a yaatal liggéey bi waaye itam yemuñ ca mboolem li nga xam ne moo fi xew fexe nañ ba lien yooyu ñu di ko joxe ba nga xam ne ñoom dootuñu déplacé wu wootee rek dañuy jël seen lien mën a transmettre euh, waxtaan yi mën a transmettre naafile yi comme ni mu waree nga xam ne fu waay mën a nekk dina ko mën di topp euh, ci anam gu ne bu ko defee secrétariat administratif bi nga xamante ni mooy liggéey itam lépp lu aju ci wàllu bind mboolem luñ fi indi ñoom itam ñu ngi bind lettre bi muy accusé de réception yi lettre bi wane ne nga fi nangam mu jaar ci diw jot na ci loolu itam liggéey nañ ci boole ko coordination bi nga xamante ni waa secrétariat général ñoom ñoo koy def di ko liggéey ci ronu njiitu daayira Muxaddamatul Xidma muy Sëriñ bu Buso kon daal fukki fan yu njëkk yi loolu lañ leen ci mën a tënkal incha allah suñu ñëwaatee ci yéen fukki fan yi danañ tënkaat li nga xamante ni moo fi xew Sëriñ Fàllu Silla jumaay Tuubaa ji ku ne koor ne ndogu ba tax na bés bu yàlla sàkk li nga xam ne moom lañ fiy segg ci kafe day takk lool loole nag laaj wàccaay wu am solo moom moo tax ñu doxantul leen ba ci ñi nga xamante ni ñooy waajal lu mel muy wàllu café googu ñu indi leeral ci ni nga xam ne noonu la ñuy waajalee kafe gi waaye it lim bi nga xam ne bés bu yàlla sàkk moom la ñuy segg ngir ñu mën ko baaxee mboolem taalib yi nga xam ne dañu ñëw fii ci jumaa ji di ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Moustapha Fall indi na ciy leeral ne maanaam kafe gi moom daanaka boo xoolee liggéey bi fii ci koor gi ci coor gi si boppam maanaam dafa am liggéey bi dafa am ay heure ay heure donc faw nga ñëw 7 tàmbali ko ndax li ñu fi segg ci ay café yooyu bari na bari waaye boo xam ne nii il faut nga ñëw jaay maanaam dabu heure bi ñëw fi 7 heures 7 nga fiy ñëw soo ñëwee nga nga root nga jël tarmus yi nga dem root tarmus yi boo ko xoolee ñu ngi si root parce que ay dañ ci root 17 tarmus léeg-léeg bu dee ay ajuma yooyu dañ koy dem def ko ba ay 20 tarmus yooyu noonu dañ koy root ci ndox suñ ñëwee suñ ko rootee suñ ñëwee teg ndax day teel moom 7 heures lay doon moom soo ñëwee nga nga jëw teg taal taal ci nii daal di ñëw boo ñëwee nga nga taal taal taal ci teg ci nii yëpp nga taal nga teg ab 7 noonu ndax lu ko may rek soo soo ci benn soo ci benn perte benn heure rek. heure boobu daanaka day li day feeñ ci si liggéey bi ndax maanaam bari na bari goo xam ne ne liggéey bi bari na bari goo xam ne ne rek loo si perte rek pour nga dabuwaat ko rek dafay dafay lii loolu nag boo xoolee si xayma nag maanaam kafe wala leen kafe gi nga toll ci ay léeg-léeg bu dee yeneen bis yi nga ko def 17 léeg-léeg ñu def ko léeg-léeg def ko 15 tam bu dee yeneen bis ay aju na yooyu noonu mbooloo mi gën a bari dañ def ma def ay vingt tarmus yooyu noonu nag ay verre thermos yooyu. mbokk yi ba léegi dañuy desandi ci fànn googu muy euh, collation bi ak yeneen yi ci aajowu euh, ki nga xam ne moom moo di euh, wala ñi nga xam ne ñoom ñooy waajal wàllum bisaab mi ñoomit dem nañ fa gis ni nga xam ne noonu la ñuy waajalee lu ni mel ndax lim biñ ci waajal bés bi yàlla sàkk day takku lool ba tax na dañ ciy jël ay matuwaay yu am solo am équipe bu xariñ boo xamante ni ñoom la ñu ci liggéey bi. dem nañ fa def reportage ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Lahat Loum am na kàddu yoo xam ne indi na ko ci di leeral li nga xam ne noonu la ñuy waajalee boobule bisaab ñu teewlu kàddoom. liggéeyu bisaab bi ni nga xamante ne si moom la demee mooy bu ñu soo maanaam bu ñu dikkee dañuy andi bi bu ko defee bu dikkee ñu jël ko jox jigéen ñi nga xamante si ñoom lañ féetale ñu nekk ci wàññi di war a liggéey liggéeyu jigéen ñi ñoom ñoo ko njëkk a saytu dindi maanaam lépp loo nga xamante ni si bokku ci ba set. buñ ko dindee ba noppi nag door ko raxas raxas bu njëkk tuur ndox moomu door ko segg door ko jël nag def ko ci ñaari bërigo buñ noppee door ko xooj buñ ko xoojee nag diir bu gàtt lu man ñaari waxtu wala ñetti waxtu ci la ñuy door dikk nag euh, war koo segg bu ko dee nag wàllum segg bi moom buñ demee ba toll ci ay heure ay heure une heure wala midi trente lu ci gën a bëri moom lañ koy segg waaw maanaam li nga xamante ne si bis bu ne moom la ñuy defar ni muy toll fukki tarmus la ñuy defar ak juróom par bis bu dee yokk ba ca kanam moom ñetti tarmus lañ leen di jox bu ak yokk Moustapha Moussa jox leen juróom benn yokk bi ñu jox leen ñett noonu lañ koy séddalee ci buñ ko defaree ba noppi waaw bu dee li nga xamante ne si moo jëm ci wàllum suukar yi ci seize tarmus yi nga xamante ne si moom la ñu defar maana benn tarmus bu ne six kilos moom lañ koy suukaree bu ko defee boo boolee lépp lépp ni suukar sooyal tool mi ngi doon war a doon toll ci quatre-vingt-dix kilos bu fekkente ne si seize tarmus yi ñuy defar quatre vingt moom moo koy suukar waaw bu dee lu mel ne bisu àjjuma nga xam ne nit ñi dañuy gën a nga xam ne mën nañoo defar ba lu mat dix-huit wala ñu defar ba lu mat bu boobaa moom cent vingt lañ koy suukaree ndax maanaam six kilos lañ koy suukar rek tout simplement moom la ñu multiplier bu ko defee nu mu toll ci ay tarmus rek noonu la suukar si yéege. waaw kon maanaam yokk un trois tarmus lañ leen di jox yokk deux ñu jox leen six yokk trois ñu jox leen trois moom ñoom tam ñu jox leen six bu ko defee lépp lépp war doon ci. door a dollu ci douze tarmus bu ko defee des mooy war li xam ne si mooy war dem ci commission yi ak li nga xam ne mooy war des ci waañ bi ba léegi ci xibaar yi ci waañ wi la ñuy desandi ndax wàccaay yi nga xam ne moom moo jëm ci ndog yi ba léegi mu nekk wàccaay yu am solo yoo xamante ni saa su ne ñu ngi ci euh, lépp rek ngir euh, li nga xam ne moo jëm ci ndog yi mën a yemb saa su ne. doxaltun lañ leen ba ci euh, waañ wi waxtaan ak euh, jëwriñ ji nga xam ne moom moo yor liggéey bu ni mel mu leeralaat ni xam ne noonu la ñuy waañ wi ak lépp lu ci aajowu ni nga xam ne noonu la ñuy euh, tëralee li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi ak ndog yi waaye it indiwaan leeral ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum jinjeer muy jus yi nga xam ne dañ koy waaje bés bi yàlla sàkk lépp rek ngir ñi nga xam ne ñoo fi ndogu see mën na ndogu ci ndogulu jaar yoon Serigne Abdou Samat Loum moo jëruñu waañ wi ñu ànd teew lay kàddoom mu mel ne lu jëm ci wàllum waañu ngeen laaj surtout ñun ñi nga xam ñoo féet ci wàllu jinjeer donte ñoo ñoo jëwriñe lépp liggéey bi lépp waaye dañ ko xaaj def ko ñetti pàcc lu dem ne kafe gi ak bisaab bi ak jinjeer ji sëñ Moussa Fall féet ci wàllum kafe gi ak sëñ Fallou Fall ak ñu ko àndal Abdoul Ahad Loum ak sëñ Mor Fall féet ci wàllu bisaab bi ak ñu ko àndal man ak ñoom Ibrahima ak ñi ma ko àndal ñun nag ji xëy na café bisaab bi ñoom Abdul Ahad ak sëñ Moustapha waxoon na leen ni toll jinjeer ji ñu ngi ci defar la toll ci sept tarmus jinjeer suñu euh, sept tarmus jinjeer euh, la ñuy defar chaque jour yan jour nag am na bis yoo xam dina gën a yokk tuuti dina augmenter lu deme ne ajuma mbaa ñu xool ne gan dina si yokk mbaa yu demee ne ñu yo ñu xaw a yokk tuuti suñ xëyee huit heures lañ fi xëy si gën ngaa naaj ba defar ñi xëy nekk si café ga ñi xëy nekk si jinjeer ji xoll bi ba noppi dëbb ko def la ci war lépp ñi xëy nekk si bisaab ba xooj defar ba keroog tisbaar jot yëpp defar ba yëpp noppi ñu toog as diir toog saan xaw a jege ñu tàmbalee tàngalaat café gi ngir waajal ko yóbbu sa yokk ba suñ ngir waajal ko yóbbu sa yokk ba bisaab ak saak bu ñëwee bu ñëppee séddale ko si ñeenti yokk yi fa ñetti yokk yi fi am mbaa ñeenti yokk yi fi am muy yokk un yokk deux yokk trois ñu jël jox waa un liñ moom waa trois yiñ moom waa deux moom commission yi kenn ku ne ñu jox la sa ndogu li aj si yow yoo moo jëm si wàllu wàññi si globalement bu fekkee wàllum lu jëm si sukkoor seet chaque jour lu mu néew néew moom cinq sacs sukkoor yi moom buy manqué tuuti lay manqué Ah, parfois yenn saa yi lu ba manqué tuut lay manqué donte teewul nag kenn ku ne xam nañ la ngay sukkar moo xam mi café moo xam mi bisaab bi waaye global ba daal noonu lay demee waaw personne bi liggéey nag am na ay góor am na ay jigéen yàlla dawal ñoom ñu fi liggéey ñëpp wax dëgg yàlla pas-pas yeeg pas-seef noonu lañ ko liggéeyee dañuy teel xëy si ba kii liggéey bi nopp parce que ñu bu noppee dañuy dem ba timis bu noppee dañuy àndaat ak ñoom liggéey bi nopp raxataat defaraat bagage waajalaat ba suba mbokk yi ba léegi fii ci uh, jumaay Tuubaa mag ji bés bu yàlla sàkk ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ndogusee dañuy ñëw fekk ñu waajal bërëb bi bu baax baax ànd koog daayira mu xaddamatul xidma ci mboolem équipe yi nga xam ne ñoom ñooy waajal lu ni mel ba tax na demoon nañ nemmeeku mbooleem bërëb yi nga xam ne fi la ñuy lal di fi waajal ndog yi muy ci yokk yi nga xamante ni bés bu yàlla sàkk day fees dell rawatina ci aljuma ji nga xam ne moom la ñu génn nekkoon ñaareelu aljuma ci weeru kooru 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 nga xam ne mbooloo mu takk lool ñëwoon nañ fi doon fi amal li nga xam ne moom moo di ndog yi lépp rek ngir taxawu leen ci biir weeru koor gi ba tax na duñ tumranke benn yoon ci li xam ne moom moo jëm ci seen wàllum ndogu ñi nga xam ne noonu ko ko gisee ci image doxantul nañ leen ba ci mboolem yokk yi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji nga xam ne lépp lal nañ ko mu fees dell ak ay taalibe yoo xam ne bàyyeekoo nañ fu nekk ñëw di fi ndogusee ba léegi mbokk yi ci biir weeru koor gi fii ci dëkk bu sell bi di Touba ñu doxantu ba résidence xaadi Xaadimu Rasul cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides mu ngi wéyal di fa dundal weeru koor gi ni nga xam ne noonu la ko fay amalee bés bi yàlla sàkk ci teewlu xasida yi nga xam ne moo fay jib ànd ceeg daara Hizbut Tarqiyyah ci njàng am solo moo xam ne bés bi yàlla sàkk Serigne bi mu ngi koy teewee ànd kooku ñu bëree bëri ci njabootuk cheikhul xadim bi loolee mi ngi wéy ci résidence Khadim Rasoul ci teewaayuk Serigne bi ñu des ndiki euh, ñu des ba léegi ci foofu ci résidence euh, ndax ki nga xam ne moom moo di soxna maam Issa Mbacke ahlu café moom it at mu jot taxawaay ba am solo lay am ci résidence Khadim Rasoul ci taxawu mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom it fa la ñuy amalee ndogu li moom moo tax mboolem kuréel gi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bu ni mel dañ ci amal waccaay wu am solo jël ci ay matuwaay ba ñi nga xam ne ñooy ndogoo ci résidence Khadim Rasoul duñ tum ranke benn yoon ci yooyu la fànn am na kàddu yoo xam ne taataan nañ ko ci yenn ci jëwriñ ñu anteewul leen. liggéeyu ahlu café nag ci euh, mboolem liggéeyu Serigne Touba yi sono maam isa mi nga xam ne mooy borom liggéey bi di bopp bi daa xam ne Cheikh Ahmadou Bamba a Rasoul euh, daa waxoon doomam ju tedd ja sëñ Mudu Musaa ak sëñ Fallu ak euh, sëñ Masamba ne leen du ma magi kenn du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn li fi ne ci man da ngay da jaayante ngir jënd ko moo tax sono maam isa xam ne liggéey sëriñ am mooy njariñ moo waral toolub lislaam bi yaatu lool waaye nag moom mu farawoo kafe gi nga xam ne ndigal li nga xam moom laa séddale kafe gi ci moom laa ko jële ndigalu kafe gi axlu kafe ci moom laa ko jële waaye teewul nag fédération la boo xam ne ay daayira Maam Jaara la lëkkale ci biir réew bitim réew muy international nga xam dem na ba nekk ONG Ahlou Café Touba léegi waaye nag base bi mooy kafe gi ndax kafe gi ci lañ njëkk a tàmbalee liggéey bi ndax bañ jógee doon lu Café rek ne Ahlou Café mooy jaami daayira yëpp daayira bu nekk rek ñun mën nañ laa liggéey topp ci sa ginnaaw ñu sëñ bi dimbale woon ndax dañoo nangoo topp ci ginnaaw ñëpp ndax Ahlou Café tamit amul xeej ak seen ñu ngi ànd ak ñëpp di liggéeyal Serigne Touba bépp xew-xew bu xew ci yoonu murit wala ci diine ji te ñu yëg ko dinañ ñëw tàngal ka bi dem def ko addi Serigne Touba. mbokk yi bu jugee résidence Xaadimu Rasuul ñu dellusiwaat fii ci jumaay Touba ju mag ji waxtaanee. commission sociale bu Touba ci kanam ci seen taxawaay bu am solo at mu jot jëmee ci ni nga xam ne noonu la ñuy taxaw ndog yi fii ci grande mosquée bu Touba ñu ñëw nag doon indi ndimbal loo xam ne ñu ko doon débbal daayira Muxaddamatul Xidma doon leen jàppale ci ndimbal li nga xam ne wala ci wàccaayu ndog yi nga xam ne moom la ñuy baaxee mbooleem euh, taalibe yi nga xam ne dañ fi ñëw di fi ndogusee ki nga xam ne moom moo jiite commission sociale bu Touba ca kanam di Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko leeralaat ndimbal gi nga xam ne indi nañ ko fii ci jumaay Touba ju mag ji. Serigne Abdoulahi Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal ak mbooleem waa waa gi yëpp waaye nag seen bànqaas bi nga xam ne ñoo yor wàllu jàppalante muy al infaq fi sabilillah muy commission bi ñuy wax sociale. mu doon ab jaayante boo xam ne bokkut ak ñaar téeméer yi nga xam ne ni moom la bokki taalibe yi di baaxoo barkeeloo ci ci tubaa ci kanam nga xam ne li ëpp ci infrastructure yi nekk ci dëkk bi nga xam ne ni ay coobareew ay taalibe ñoo ko fi def def na ci lu bëree bari kaddu yi tamit comme ni ma leen ko waxee woon rek daanaka jëru ko woon ndax loo war a def moom dañuy wax ne la sukkur al waajib li la war nga def ko daanaka jëruñu la ciy sant te barab bii moom lu ñu fi def war nañoo def lu ko ëpp fuuf ndax sunu yaakaar yi tey ëllëg fi la nekk mu Cheikh naa Cheikh Ahmadul Xadim waaye li tax ñu ñu ci yëkkati kàddu rek ginnaaw bu ngeen ko sàkkoo mooy ñun lii ñuy def muy commission bi ñu yor muy social ba muy door benn liggéey lañ amoon muy nañ fare woo jumaa ji liñ daan jaayante lépp weer wu nekk ku nekk am loo génne liñ ciy def mooy nañ ci nañ ko yóbbu jumaa ja fexe ba di barkeelu ca ña nga xam ne ñooy jàng kaamili sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo fay nodd ak ñi nga xam ne ñoo fay jiite loolu rek moo doonoon liggéeyu liggéeyu commission bi waaye barkeel bu mbirum sëriñ bi barkeel nga xam ne sëriñ bi moo dénkaane woon ne jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbb ba mukk ñun ñun mën nañoo seere loola donte ñëpp mën nañ koo seere waaye ñun am nañ ci firnde ju wóor ndax lii ñuy def bañ koy tàmbali jumaa ji rek moo taxoon mu jug waaye gis ngeen tawfeex ji ñu ci yàlla defal dem na ba li ëpp ci dëkk bi ku jaaxle commission sociale la sa xel di dem gis ngeen liñ séddale ci dëkk bi yëpp mu ngi ba mi ngi mi ngi jugee ci barkeel gu jëf gi ni jëf fii barkeel lii ñu indi fii tamit bari na barab yu ñu ko yóbbu loolu lépp tamit barkeel gu fi barkeel moo tax. ministre de l'intérieur bu Sénégal di Antoine Félix Diome moom it yabal na fi délégation fii ci grande mosquée bu Touba ci daayira Muxaddamatul Xidma ci ndimbal lu takk loo xam ne jébbal na leen ko. fas yéene ànd ak ñoom nit liggéey bu sell bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci uh, jumaa ji mu nekk jëf ju xamante ni mboolem daayira muxadamatul xidma rafetlu nañ ko moom uh, ministre de l' intérieur yabaloon ki nga xam ne moom moo di Serigne Souhaïbou Kébé ñëwoon jébbal ko ñenn ci jëwrinu uh, daayira bi ñoom it santaan nañ bu baax a baax ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome ci taxawaayam waaye ci yëg gi nga xam ne am na ko ci daayira muxadamatul xidma ba leen taxaw saa su rawatina ci biir weeru kooru 1444 gi di atum 2023 mbokk yi ba léegi ñu wéyale xibaar yi fii ci Touba Mbacké ci biir weeru koor gi waxtaanee rek ndimbal gi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma niñ ko baaxoo amalee dem nañ ba ci prison bu mbake yóbbu woon fa ndimbal lu takku ci ay xéewal yoo xam ne dañ ko doon jébbal mbooleem ñi nga xam ne ay julit lañ te nekk ca boobule bërëb ñu téye leen fa loolee nag nekk lool euh, rafetlu nañ ko bu baax a baax mboolem jëwriñ yi nga xam ne wala kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy saytu wala yor liggéey yëpp boobu prison rafetlu nañ bu baax a baax liggéey yëpp daayira Moukhaddamatoul Khidma waaye ni nga xam ne at mu jot noonu la ñuy gëstoo mboolem prisonniers yi nga xam ne ñoo nekkee ci boobu la bërëb te soxla woon dimbali bu baax a baax waaye ñu ñaaxaat leen waxtaan ak ñoom gën leen soññaat bu baax a baax a baax ci li nga xam ne moom moo di ay nattu te teeku seen kaw ñu àndu teelu kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fa bàyyeekoo ci yenn kilifa yi ci ginnaaw euh, ndaje moom lee ñëw fi tey nag ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma tànk yi nag li ko waral mooy e, liggéey bu am solo bi nga xam ne daayiratu Muxaddamatul Xidma mi ngi koy taxawee ci jumaay Tuubaa ak ci armée li ak lépp loo xam ne moo aju ci penc bi sëriñ bi dénk leen ko loola ñëpp xam nañ ne daf caa bokk bu weeru koor jotee ñuy amal ay ndogu ci jumaa ji ndogu yooyu nekk nekk barab bu yaatu boo xam ne mbooloo mu bari dañ fay daje Euh, boo bis bu set lu mu néew néew danañ am ñeenti junni jàpp juróomi junni nit yoo xam ne dañ fay doge loole nag ña koy def si di njabootug lislaam di taalu Sëriñ Tuubaa yi nekk ci dëkk bi rek ñooñu nag ñu gis ci ne xëy na ñàkku ci ñoo xam ne nattu dab na leen ba ñu ñëw ci barab bi te ñu bokk nag ci mbir mi ñu war leen di leen fàttaliku war leen a xamal ne itam yëg nañu ne ci société bi ngeen bokk waaye yëg nañ ne itam ndog moo leen gaar ngeen ñu téye leen ci barab waaye da ngeen a war a barab boobee bu ngeen ci jógee da ngeen war a dellusiwaat ci noonu ñu bokkaat li ñu amoon lépp loolu nag bokk na ci li leen koy won mooy langay nekk di ca yëngu waxtu wu nekk nga di ca bàyyi xel di leen ca fàttaliku te di leen ca boole loolu moo tax ñu gëm ni ñoom xëy na su yàlla dogaloon ñu nekk ci biti mën naa am danañu ñëw doge si fa donte benn bis la ci ci ci ci ci ci koor gi waaye ñàkk faa nekk nag taxul seen bokk ci dañ kon buñ fa nekkut te mënuñoo ñëw ñun am nañu euh, àq ci jël lañ leen waroon a doxe foofa andil leen ko fii ñoom itam terale leen ko ci barab bi nga xam ne fi la ñu nekk kilifa gi loolu moo doonoon euh, yitte ji ak it nag euh, naabaat leen itam nag ñu xam ne lii kaso du du du du lu nattu la boo xam ne nii day dab doomu adama tey jëmbul kenn koy dund ci kaw suuf fii ku ne rek ku xëy ku ne mën na fee fanaan si ndax la ko fiy andi doonul ne yow yaay dem fàggu ji ko waaye mën naa doon loolu suñu borom dogal ci sa dund mu war a am te bu am waree am faaw day am kon nag ñi fi nekk ñi ci biti war nañ leen di bàyyi xel ndax ku nekk ci biti rek sa place am na fii waaye ku nekk fii sa place am na ci biti te da ngay génnaat fekk fa ñee ci biti loolu nag relation bi war a dox seen diggante ci ak fàttalikonte ci ak jàppalante ki ak yëgante ak euh, yanu laale yanu yanu la bi nga xam ne moo daal seen kaw ngir moo yef ci ñoom loolu jàpp naa ne lu am solo lay doon lu baax lay doon président ci xibaar yi ba léegi fii ci jumaay Tuubaa ju mag ji ndog yi day nekk uh, jotaay yoo xam ne dafay yaatu lool ba jumtukaay yi nga xam ne moom lañ ci jëfandikoo mu jëm ci cafetière uh, kaas ak yeneen ci aajow loolu lépp day laaj ñu waajal ko bu baax a baax ginnaaw ndog li muy ñu setalaat ko loolee nag am taxawaay ba am solo boo xam ne mboolem jigéen ñi dañ ci taxaw saa su ne ba saa yu ndogoo rek ñu dajale mboolem li nga xam ne moom lañ doon jëfandikoo ci ndog yi muy karaaf yeek lépp ci aajow kaas yeek muy glacières yi ak ak yeneen yi nga xam ne danañ ko ci ci ndog yi loolee lépp setal ko ba mu set ranger ko waaye waajalaat li nga xam ne moom moo jëm ci ndog yu ëllëg yi mbokk yi lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moom mooy bàyyeekoo fii ci euh, Touba Mbacké ci diir ayu bésub ñaareelu ayu bésu weeru koor 1444 ginnaaw gàddaay gi sant leen bu baax a baax gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje incha allah fii ak euh, ay fan yu néew ci yeneen i xibaar yoo xam ne daañ leen ko baaxee lépp rek di bàyyi ko fii ci dëkk bu sell bii di Touba wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد